الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بالله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب ربكم على نفسه الرحمة اللهم أدخلنا في رحمتك قال تعالى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت خير الراحمين وقال أيضا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين كما قال أيضا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إذا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين مبكي أمنا نمكتلون nañu سيدي أحمد xam naa ne القرآن say kilifa ci yoonu alquran wuyu la dafa neex bal bés bi tey mu tombeek ay mbir yoo xam ne su yooyu amut woon jombul dina jafe lool pour ñu gàttandu gan yi ci bërëb bi bi ci jiitu mu nekk jotaayu kokki ndax réew mi ku ne bésub alquran wala ku ne bërëbub alquran mënoo ko tudd te tuddoo daara joojee nga xam ne ñeenti junni donga ñu ko ca daara ja te kenn fayut waaye problème mu calendrier la ba teewul di ñun dañ fa amoon taxawaay bu rëy waaye mënuloo bàyyi bés bi dem fa ndax góor ga Ahmad Saxiir Lo radiyallahu anhu su doon dund tey jii daf nuy naan Cheikh Omar toogal mbuur nga taxawal ñu fa moo tax ay kilifa yu bari mën naa ne jamono ji tàll nañu seen oto départ foofu ñu ci yoon wi donte nekk na mbir moo xam ne sax gënaluñu parce que yàkkamte ci tëli senegal yi wóorut am ci ñoo xam ne mënunoo ñàkk dem mu métti ci ñoom lool ñaareel bi nekk tiis boo xam ne dafa dal ci ummatal Qur'an tey ci guddi mu nekk Khalifa Fass Touré te ku xam waa Fass xam kóllëre gi dox sama diggante ak ñoom ci alaaje macha allah baraka ku xam waa Fass xam kóllëre gi dox sama diggante ak ñoom ba am ci foofa ay jëmm yoo xam ne ay surprise lañ ko bëggoon a def tey jii pour teew ci barab bi yàlla yàlla ci fajar gi lan ma jokk sunu góor googu nga xam ne moo génne àdduna yàlla na waxtu wi fekk ko ko ca aljanna muy nan yaa layta qawmi ya'lamuuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukarramin suma wëllëre suma mag suma sëriñ Cheikh Abdourahman Awf muy Abdourahman Touré nga xam ne bindi na ay kaamilu alquran alkarim ci loxoom bi mu waajee ba ci fajar gi fexe na ba jot ma mu ne ma cheikh bi de am na tiis gu dal sunu kaw waaye maa ngi àgg faas waxoon naa leen ne dinaa dellu si mbuur ñoom dañoo rob rek mu départ ba mu agsi ànd ak suñu rakk joojee nga xam ne mooy albatalul quraan yi Cheikh Abdourahmane Touré yàlla yàlla feel ñu ko jéem naa ko koo ba sonn waaye teewul mu ñëw am sama magu bopp boo xam muy imaam al sayid al qarm al cheikh imaam Mouhamad Ndiaye mële toog yàlla dogal mu nekk suma wóllëre nekk suma sopp ñooñ alquran sopp aima yeeg maqaari yi waxtu wi ñëwam Sénégal sax daf koo natt ci bés bi bal mu ne ma bés bi fekk jàllul duma dellu am ay yitte yu bari yoo xam ne ñu ngi koy dox ci réew mi yaakaar naa ñëpp xam nañ ne fan yi weesu dem nañu Tiwaawoon ci semaine bi dem nañu Touba waaye am ay yitte yu bari nga xam ne daf ma baal sax ci bés bi yoo xam ne day yolleeku mujje day mujje yolleeku dem ngir bañ maa sonnal yal na yàlla feel ñu ko yiw fële mu nekk ca Amérique nga xam ne mën naa ne nationalité yëpp ay jullee ci gannaawam moom su ko neexoon mu làqatu sénégalais yi lii ay nit ñu ko fekkee ñoo ko seede ma fekke ko bërëbam soo demee ca Amérique da yàlla daf ko faa dénk bërëb bu yaatu daayira murit ya fa nekk moo leen di aal fa ñuy defee daayira daayira tiijaan ya fa nekk moo leen di aal fañ koy def képp koo xam ne ci réew mi nga cosaanoo ahlul quran su ñu ñëwee mu jox leen ko jox leen alalam kon su ñëwee faw ñu tudd ko di nuyu bu baax axussu salaaman li xabibiya imama شيخنا محمد إسماعيل المصري لا أريد أن أطيل في العربية سرنا منك كثيرا الذي كان مشغولا اليوم لكنه رغم هذا ترك جميع حوائجه ومشاغله وجاء ليقضي معنا هذا النهار وكذلك جميع المشايخ الذين كانوا معنا هنا di bu baax a baax samay mbokki deret comme ni ko su ma mag jooju doon waxee ni muy Serigne Seck Ndour samay nijaay yi bokk ak suma yaay ndey ak baay ñoom ñu ngi fi yàlla na yàlla fay leen yiw samay baay ak sumay frères yi nga xam ne ñoo bokk benn deret ñoom ñëpp ñu ngi fi sunu yaay ji nga xam ne moom la ñu dëppee bés bi mu nekk Sayida Fatima Jonn yàlla dogal na am naa rakk yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay moom lañ ko tuddee Abdul Karim sama donga li doon jàng fii ci suba si boroom këram lañ ko tuddee kon bés bi daf ci am cër bu rëy rëy yal na yàlla buur bi subhaanahu wa taala ko yiw yàlla fay yiw suma yaay yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñëpp Sayida Hafsa Fall waaye bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy way juri samay donga maa ngi leen di nuyu bu baax jël nuyoo yëpp di ko teg ci loxoy ñett mu nek Cheikh yusuf Diallo nga xamne dafa jël auto bu taru net auto bi la jox alu Daoud waye diko tek ci loxo sama serigne suma mag Cheikh Abdal Aziz darami mu nekkon ci jotay bu am solo te mag lol ci réew mi fan yi waye diko tek ci ki nga xamne moma defal surprise bi sank mu sayyida maryama Diallo mu nek soxna su sel yal yàlla barkel ko di ziyara ñep yal yàlla barkel di nuyu bu baax. sama serigne be nga xamantene lahu fadlun ali bal jàngal na ma tafsir asabuni mu cheikh abdallah faymi mii yàlla fay ko yiw di nuyu bax ki nga xamne mo fi teewal serigne dara sénégal gep muy ahbabul quran majmuatu mashayikh wa maqari wa muallimi kitaabi rahman fi biqaai lmannaan mu nek cheikh omar fouti kan male cheikh omar serigne dara omar kan mom lañu gëna xamé tay ji ku bëgg mu songu la fi rek joxoñ ma mom ken du laal sëriñ daara sëriñ daara su toñe sax mu ne toño hakada huwa waaye di ziar bu bax ñaari mbolo yi nga xamne lépp ben njabot gi la ana khadimuhum mu nek alu daoud xamna senu kàddu suma mag gi nga xamne fuma gis fuma way gis gis ko fa muy imam abi bakr trawale dina ko jël waaye di nuyu bu ba ahlul quran bi mbuur ño xamantene bañu jappé bés bi ay wër ak légui kenn ci ñom nelewut ñom ñu ngi ci bés bi bës alquran ñom innahum fityatun amanu bi rabbihim rek la leen di tuddé ñom dañu jël seen lépp jox ko alquran al karim baraka arrahmanu fikum waye suma ma suma serigne bi nga xam ne mooy Pa Cissé moom mu ngi toog fii su ma lépp la bokk na ci ñi tax ma ñeme lu baree bari ci réew mi parce que alquran soo ci nekkee bari lu la bañ wa qaala alladina kafaru laa tasma'u li hada alqurani walgaw fihi laallakum taglibuun moom mu bokk ci ñi tax ñu ñeme lu baree bari ci mission alquran ñu moytu caaxaan gi moytu wuutal yàlla ay dendale loolu moo tax njaboot gi bi ñu dajee ñu ne dañoo bëgg ren jii ñu waxtaane tem goo xam ne dañ koy jël lépp delloo ko yàlla mu nekk azamatullahi malikul muluk màggaayu yàlla mi nga xam ne mooy buuru buur yi koo fi manti ragal walla jox ko cër lu buur mën a am ba jàpp ne moo mën ñëpp moo noot ñëpp yàlla màggaayu yàlla xajul ci moom moo tax mu jaadu te jotaat njaboot gi ne nañu waxtaane xool lu nuy joxe yàlla cëram ñu seytuwaat xool li nu wër lan lanu yàlla buur bi subhaanahu wa taala defal ak lan lañ ko delloo loolu nag pour ñu mën koo gis dañ koo mën a delloo ci li nu yàlla wan waaye ñu awee ko ci alquran ak njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax waaje waxoon ne achamsu wal badru min ayati qudratihi soo bëggee xam yàlla xamal ne jant wii ngay gis nga xam ne moo sunu lampe yi sax amu fi won njariñ ci kanam lay door am njariñ jant way leral ba leral sunu néeg yi moom mooy firnde bi wane ne yàlla boroomi kàttan la wer wi nga xamne su jant wi sowe wer wi ne nongu ci kaw kuko xol seytu ko seytu wat ko xamne yalla yàllaa ngi fi ne jak di la xol wal barru ku xool jéeri gi nga xam ne ñu ciy tabax sunuy kër di ci xotti sunuy tëli di ci tant sunuy conférence am ñu ñeme te sañ te yeb yàlla ba cay tant mooy yàlla soo ko xoolee nga xam ne suuf si ci ndigalu yàlla rek lay dox day wane ne yàlla am na faydun min ataayaahu loo fi gis rek yàlla buur bi subhaanahu wa taala moom moo ko fi def atayru sabbahaahu picc maa nga ca kaw garab ga ne nongu di sabbal yàlla walwaxsu majjadahu gaynde baa nga ca àll ba moromam bu mu gis song ko waaye su ca paree ne alhamdulillah di sant yàlla wal mawju kabbarahu soo demee ca géej ga gis vagg yi daal di jug dóor ca kaw ndox ma di sabbal tey màggal yàlla wal xuutu naajaahu picc yaag balen yaa nga ca ron géej ga di déylante ak yàlla wan namlu taxta suxuuri summi qaddasahu da ngay ubbi toj ab xeer fekk mellentaan bu toog di lekk penn pepp dugubam di sant yàlla te di ko maggal màggal lu naxlu yahtifu hamdan fii xolaayaahu da ngay fekk ab yambam ñoom ñu bolog nekk ci benn garab ñoom ñëpp ñuy tudd yàlla waaye wannaasu yaasuunahu jahran fa yasturuhum doomu aadama yi dañuy moy yàlla ne ko yàlla yaa ñu bind gëm nañ ko xam nañu ko waaye taxul ñu faale di ko moy bëccëku ndar kàmb fa yasturuhum mu leen di sutural wal abdu yansa wa laysa yansaahu nit day fàtte te wallahi alladi laa ilaha illa huwa saa borom yàlla du fàtte waxtaan wi dañ koy tënk ci juróom-ñaari tomb ci juróom-ñaari tomb la ñuy tënk waxtaan wi bi ci jiitu mooy yàlla bi mu fi nekkee ne kot moom kese dem ba nam ma amal lan la njëkk amal alqawlu fi awwali ma xalaqa allah li yàlla ñëk bind lan la al awlu al qawlu fi awwal ma xalaqa allah li yàlla ñëk bind modi lan suñ ci paré andi dañuy faral di dégg aras ñukoy wax aras ci wolof aras moy aras ci arab ñu bari dañuy dégg aras léegi nga dégg dit nan wa rabbul arshil azim wa rabbul arshil karim wa rabbul arshil majid lan modi aras nu mu mel nu mu faw yoyu ñu xam ko moy tax ñu xamne yàlla amul morom te yàlla amul dendale suñ ci paré ñettelu tomb bi al allawxul mahfuuz mooy alluwa yàlla bi yàlla dafa am alluwa boo xam ne daf ko sam ci asaman nu mu toll ak nu mu mel ñeenteelu tomb ba nek xalqu samawati wal ardi wa ma baynahuma ni yàlla binde asaman ak suuf ak lépp lu dox ci diggante asaman ak suuf yakarna ñépp sax xamna nañ ne bi xaju fi ben tomb rek xaju fi waye dañ ma dank dànkoof dañ joxe kemti lay katan juróomeel ba nek al bihar wal anhar géej yi ñu gis ak dex yi nan la ko yàlla bindé ak yan xam-xam no ci nek juróom beneel ba al malaikatu wa sifatuhum alayhim assalam malaika yàlla yi da ngay deg malaika malaika mujadu nit ki xam malaika yi nu tollu ak fu ñu nekk juróom-ñaareel bi nek khalqul jaan wa qissatu shaytan ni yàlla binde jinne yi ak nettalib iblis amon na juroom ñettelu tomb ak juroom ñentel man mako ci hadaf juroom ñettel bi mu nekkon khalqu aadama alayhi salam wa bidayatu hadhihi dunya ni yàlla bindeem aadama sunu mam ak ndortelu aduna bi juroom ñentel ba nekkon nihayatu hadhihi dunya jeexitalu aduna mais ñaar yoy dañ ko ci hazf kon ñu teunk kemtile katan mbok yàlla bur bi subhanahu wa taala ñuy dund ci jamono joo xam ne bés bu nekk da ngay dégg ne diw dee na diw a ngay dox dee na diw feebar na deena diw tal na otoom accident na dee na diw toog na tabax màbb ci kawam dee na diw dugg na ci géej gi lab na dee na yàlla fépp foo xool rek nga gis màggaayu yàlla lillahi fi l afaaqi ayatun laalla aqallaha huwa ma ilayhi hadaaka li nga xam ne mooy firnde yi wane ne grandeuru yàlla soo xoolee ci li la wër ci univers bi fépp foo xool rek nga gis tolluwaay yàlla buur bi subhaanahu wa taala kan ci yéen moo mos a dox ba mbëkk ab benn miir ñu ne la fii la àdduna yem kan moo dawal avion ba avion bi ne këng ñu ne avion bi mënta romb fii la àdduna yem kan la avion di naaw ba mbëkk asamaan ñu ne mënatul avancer fii la asamaan yem لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك ku xool ci sa bopp xool ni la yàlla bindee nga xam ne am na buur boo xam lay dund moom moo lay sàmmal nga xam ne saa yoo watoo ñaari fan ñetti fan kawar daal di saxaat te so dindi woon der bi doo fa fekk kawar fan la kawar googee làqatu ci yow sa nopp yi nan la def bay dégg sa bët yi ak niko yàlla reudé def ci lu wex ak lu ñuul jël gis-gis ba def ko ci lu ñuul defal ko ay rideau yo xamantene sa yu danger di ñëw mu ne ko gëmmal wallahi so xolé sa bop nga xamne yalla amna wal na mashhun bi asrar idha حاولت tafsiran laha a'yaka so xolé asaman xol suuf xol sa bir kër nga xamne fo xol rek gis ci magga yu yàlla خارل ما جخلن أي ay misaal yu قل a تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض rada أرضاك دمال al amradi man nga lacc médecin ba nga xamne mo fa nekkoon ay at wala nga dem CTO wala nga dem le dantek ab docteur bo xamne mo doon fajj ñep mu mo am ay diplôme am xam feebar yep feebar bu nekk la koy joxe feebar bu nekk la koy fajj docteur bi daal di ñëw xëy dee balaa ñu koy suuli ñëwal ba ci moom nga ne ko docteur xanaa du yaa jàngi woon nu ñuy fajee feebar docteur kan moo la rey tey la koy rey comprimer mënu ci dara qul lil maridi najawau fiya baadama ajizat fununu tibbi man aafaaka dama ne nit koo xam ne dafa feebaroon ba docteur yëpp daal di taxaw ne kii pare na mu xëy rek docteur yi daal di koy xool def analyse gisatuñu dara ne ko yow kan moo la faj laa wax sama baay jee xam na ci dara feebaroon na ba docteur bi woote woo ñoom Mansour ñëpp ne dee na maanaam daanaka pare na ni kii moom saye moom mu ngi ni doy na ci seede mu ngi nii ñëpp ne pare na bésam keroog am ci boo xam ne maa ngi war a def jotaayu alquran Dakar moom daanaka moom sonnoon na lool ma tàggoo foofu ne bal leen ma jotaayu alquran bi mënta am ndax sama baay daf feebar moom mu ne sama wayjur bu jigéen Cheikh Omar su fekkee déggal na ma na dem waxtaani alquran dinaa ko seetaan appel vidéo bi ma ñëwee médecin bi woolu ma ñoom Mansour ne ma docteur bi ne ne góor gi pare na ma ñëw ne ko médecin su ma bañuloon wax wax leen turam ma ne ko yow neel yow télé nga am na docteur boo xam ne moom fa xam-xam fa sa xam-xam yam xam-xamam fa la commencé mooy shaafi ayub mooy shaafi yaqub mooy rafi samawati wal ard góor gaa ngi ni suñu njëkkante taliba moom moo may jiitu qul lil maridi najawau fiya baadama ajizat fununu tibbi man aafaaka ne ko malaat kan moo la faj bal mën ngaa avancé avancé nga ne qul li saxiixi yamutu la min illatin man bil manaya ya saxiixu dahaaka fekkal ma waa joo xam ne bopp mettiwu ko nopp méttiwu ko da ngeen di ànd di dox jékki-jékki mu ne këndëng dee allahu akbar fëggal ma koor ba nga ne ko saa waa ji lu ñu rocc ci yow ba mënatoo dégg mënatoo wax mën na dal ku nekk ci yéen ñi qul li saxiixi yamuutu la min illatin man bil manaya ya saxiixu dahaka ne ko sama waa ji ku la rey mën naa am sa baay am na million yu bari mën la yóbbu bitim réew nga fajo ji waye meunatu ko jëriñ dara basir wa kana yahdharu hafratan fa hawa biha man dhal ladhi ahwaka waji da fay dox sen ben kàmb beug moytu kàmb ga waye melni kuñu bomax ci kàmb ga waji da fay dawal otoom gis na auto buy ñëw barake na auto bi bañ ne mbeukante rek ba daal daanu de ne ko sa way kula bumax yalla ko bumax heureum am dafa jot ken xamul sa heure kagn la atal allahu fi umrikum بل سائل الأعمى خطا بين الزحام بلا اصطدام ما يقود خطاك دوجل تي مارسي bi da nga gis benn silmaxa boo xam ne mu ngi yor lantinooram naan ana kuy làmb sarax yàlla taax wallahi alladi laa ilaha illa huwa gisul nga gis ko muy feug bantam sa yu deme ba jub danger wala mu jub ab kamba da nga gis mu dadi taxaw tel ci loxo ba ci mbag ma nga ne ko silmaxa ku lay wamat yalla koy wamat la wax affaire yaangi ci sen kanam dañ ko dul gis fa zayyana lahum sheytaanu su amalihim jamono ji ku deful ndànk da ngay dund ba daanu ci kàmbay bammel te wallahi alladi laa ilaha illa huwa wax naa leen ko ci vidéo yi wax len ko ci télé yi naxe gi bari na waaw waaw bal saaili l ama xata bayna zihaami bila stidaamin man yaquudu xutaaka qul lil walidi wala sax ma ne la qul lil janini yaishu maazulan bila raain fekkal soxna su ëmb ba am 9 mois nga feug bir bi nga ne ko soxna ci balma de kon kon kon bébé 9 mois yi lan ngay dundé ci sa biru yaay bébé 9 mois yi foy noyé bébé 9 mois yi fan ngay démé wa nak wallahi yalla ko fay fekk te bir tàng na tàng bo xamné so soo loxo sa baram yi lak kan mo koy dundal ci biram yàlla la قل للوليد walidi واجهش wa لدى الولاده ما الذي ابكاكا فكل خالي بو جودو سو جودو juddu su بوب داغي جيس موي جوي تيكو غاني كو بيبي لوي جوي كونترا با مو سيني يالا لاي جوي والله والله في كل العجائب ماثل ان لم تكن لتراه فهو يراك يا ايها الانسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله اغراك يلا دمرم لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها آياك قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرضاك قل للمريض والنجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك والله في كل العجائب ماثل إن لم تكن لتراه فهو يا يراك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك تكبير تكبير تكبير لا إله إلا الله آه ما شاء الله koy mbokk yi kii mooy sunu borom subhanahu wa taala su ngeen bëggee ma gën a jege si ndax ñenn ñi comprendre من علم شعر أنغاما وأوزانا وأودع القلب أفراحا وأحزانا وعلم الحب أن القلب مورده لو لو لولاه ما لبست وردا وريحانا كي موي سونو بروم سبحانه وتعالى موم مو فك تيوفيل نكو تشوفيل سا واي موي خول دوجال سي بير خول سا يفا گيجي دم داغي مارتي دي وعلم الحب ان القلب مورده لو شح عنه بالفيض مات دمآنا وعلم الدمع أن الجفن موطنه فسال بالسجو فوق القد غدرانا يلا دار دوغو تي بوب نيكو رونغوج خمغا فوي سا فوا كوت دي لا روت موي بت موتاخ خولال اوبيل يارام دوم ادم دين فا فك ندوخ مي نيو توري ندوخ فك فا ندوخو منيو فك فا ندوخو نياق فك فا رونغوج الله اكبر يلا مو مانا داجالي ييب تي كي وعلم الأرض أن الغيث ينعشه لولاه ما لبست وردا وريحانا كيما يسنبرم سبحانه وتعالى كون بكي الله خالق كل شيء يلمو بند لغين من جس الله خالق كل شيء لواي جسرك يلموك بند وهو على كل شيء وكيل ni yalla binde فم fam yep nonu la len tegi beut ba pare di len sam kon fofu dañ fay xamene فكل ما سواه لدود يلا فهو مخلوق يلا لبند مربوب يلا لموم مدبر يلا ليدخل هو سقف المخلوقات يلا مومو جي فيتي كاو ليب لو خامني لو يلا بند الى ما تحت الثرى بليب لو خامني مومو فيتي سوف من وما بين ذلك لبلو دخ ديغنتي اسمان سوف من جمادين او ناطق لبلو لالغا خمنا جماد لا دو ينغو موي تابل بي والله تابل بي خمنا ني يالا كو او ناطق كوي واخ يالا كو بين سولا في غاي جاي ولا nga جاي سا بوب با جابي سا بوب يالا يوم مي طالب بي بايكو با مو ген تي وانك وا نكو يالا دو سا مروم الله اكبر كي موي خالق السماوات والارض دمان يالا خلق السماوات والارض يلا مو بند اسمان اكسوف في ستة ايام تجرم بني فن تجرم بني فن لا يلا جيخل سانشي اسمان اكسوف ثم استوى على العرش تجينا مدادين نونو تشكاو عرس با عرس تشكاو غيسغا فا يالا ني نونغ عرس يعلم ما يلج في الارض lépp loo xamante ne luy rot ci kaw suuf la maanaam toq taw bu jóge ca asamaan ne nongu ci suuf si béykat bi daal di jël ay dugubam wala ay mboqam wala gertam dem ba ca àll ba xotti suuf si dugal ko yàlla ne ne ba nga tibbee dugub sànni lox sànni bu nekk xam naa ñaata peppi dugub ñoom ñoo ca nekk ya'lamu maa yaliju fil ard waa maa yaxruju minha saa yu waree sax lépp luy génni yàlla nee gerte gay sax ak budul sax xam naa ko dugub ba soko xasse ba duggal yàlla daal yoni suko su ko neex mu ne melentaan demal jël ci sa wal wa ma yanzilu min assamaa lépp lo xamne da fay wàcc jugge asaman yàlla buur bi subhanahu wa taala xamnako wa ma suñu waxe wa ma yanzilu min assamaa tay ji ci jamono ji mën nañ ko firi ana Cheikh Fadil mi nek ci aéroport bépp avion boo xam ne dafay wàcc heure ba mu war a wàcc la mu yëpp yàlla nee ne xam naa ko wa maa ya wa maa yaaruju fiha ak lépp luy jóge ci kaw suuf daa di yéeg asamaan ci jëfu doomu aadama ak arwaaxu doomu aadama yàlla nee ne yëg naa ko wa huwa maakum ayna ma kuntum fu ngeen nekk rek yàllaa ngeek yéen wallahi fu waay wéet ak loo bëgg a def ak loo bëgg a wax yàllaa nga fa alam yaalam bi anna allaha yara xanaa yëgul ne man yàlla maa ngi koy gis yow mi directeur bi bala gars yi di nax jox la corrompre la ba xaalisu askan wi nga bëgg koo jox kenn alam yaalam bi anna allaha yara yow mi banquier bi ba nga bëggee jël xaalisu jaambur yow mi nga xam ne yaa bëgg lekk alalu jaambul yow mi nga xam ne yow lañ dénk alalu alalu askan wi ba nga bëggee signé loo xamante ne jullit ñépp ko moom doomu aadama yëpp ku moom nga bëgg a benn signature pour jox ko sa bopp sa njaboot alam yaalam bi anna allaha yara wallahi yàlla fekk na fekkee na ba ngay signé contrat boobu waqifuhum innahum mas'ulun yowma alqiyama yàlla di la taxawal daal di lay laaj ne anañu ma lakum la tanaasaruun lu teewoon ngeen dimbalante dox ci dëgg bal humul yawma mustaslimuun بل كي يوم الخيام دنيا يلا منين في دار كيما سنو برم سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يلا نين لواي دفتيين من ديتك ناتي بد متخ أجمع علماء الإسلام برم خام خمو إسلام يبو دبو نن يلا دفا بند أسمان أكسوف أكليب لو دوختي ديغنتي بي تي جرم بني فان waye ñom nak ñu daldi wuté ndax juróom-benni fan yooyu day mel ni sunu fan yi comme suñu jour yi wala ndax bés bu nekk dafay tolloog juróom day tolloog junni at comme ni ko yàlla buur bi subhanahu wa taala waxee ci alquran ñoom foofu la ñu wuute waaye ñoom xitam ñu daal di wuute ba léegi hal kaana qabla xalqi samawati wal ard shay'un maxluqun qablahuma ndax bala yàlla di bind asamaan ak suuf ndax est-ce que amoon na lu ko fi jiitu wala déet am na ñu ne déet bi yàlla di bind asamaan ak suuf am na lu fi nekkoon am ñu ne déet yàlla bi muy bind asamaan ak suuf dara nekku fi lu bari bari ci borom xam-xamu islam yi ñu xam le ne bi yàlla di bind asamaan ak suuf dara nekku fi woon am ñoo xam ne dañoo wax loolu ne yàlla daf leen a bind mi na la adam loolu mooy li gën a wér maanaam jëlu fi leneen daal di koy modifier def ko asamaan daf koo bind ida arada shay'an ma yaqulu lahu kun e fa yakun mu ne ko nekkal asamaan mu daal di nekk asamaan am ñenn ñoo xam ne dañoo wax ne bal kana qabla xalqi samawati wal ardi makhluqatun uxar ñu ne bala yàlla di bind asamaan ak suuf am na ay mbindeef yu nekkoon fii mais ci tënk euh, suuf sii nga xam ne moom lañuy dundee tey suuf sii euh, kii def na ay gëstu yu bari ci wàll gi ma bëgg a wax xam-xam du démb da gis ñoo xamante ne seen xam-xam ci ñaar lañ ko yemale jamono yonent bi ak jamono mag ñi barki démb adduna lu yàgg la da ngay gis nit naan non adduna moom ku mel ni yow mosu fee am waaw est-ce que xam ngeen ne suuf sii am na ñeenti milliards yi at yu teg juróomi millions ngi at yu teg ñeent fukki millions suuf sii ngeen di gis nii 4 milliards 540 millions suuf sii am na ko nga ñëw taxaw ne non ku mel ne yow mosu fee am yéen dëgër fit ay waay allah yawma yajmau llahu al awalina wal axirin yowma al qiyama moo nar a neex yàlla bërëbam yaatu na kon am ñu ne bi yàlla di bind asamaan ak suuf am na lu fi nekkoon ñoom seen dalil nekk waxu yàlla buur bi subhanahu wa taala وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام يلا نيما بيني اسمانك سوف تي جوروم بن فان واي باما كوي بيند وكان عرشه على الماء جامانو جوجي فك سما عرس موغي تي لان موغي تي كاو نخمي موتا ابن مسعود ابن عباس نين بالما واجي داف كو لاج نيكو واليك كونك يالا ني بيماي بيند اسمانك سوف عرس موغي نيكون تي كاو نخمي كون نخمي تي كاو لان لا نيكون ابن عباس نيكو كان على متن الريح كون نخمي دا فا نيكون تي كاو نغلاو لا نيكون ku mel ni imam ahmad dafay nettali ci xadisu abi razin al laqitini laqit ibni amir al uqayli ne laqit ibni amir al uqayli dafa mos a laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaa rasulallah gis nga de saxaaba yi am masala dem laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo man la yàlla natto Cheikh Omar Cheikh Omar tojul fen mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la saxaaba yi daan laaj su amee masala lolu jakkar jàkkaaroo yonent yàlla Muhammad ni mu taro ni mu rafetee xëyri xalqillah ne ko yaa rasulallah يا رسول الله منكو ينتي يا محمد عليه الصلاه والسلام منكو اين كان ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض بلا يالا دي بنت أسامان اكسو فن لنكون نيكون منكو كان في عما دا فا تي عما عما سنكو وخي مودي الصحاب الرقيق موي نير بو ويف مانام نير بو خام دانك نغيلو رك لا موي نير بو ويف موم لا نتودي عما شي عرب منكو كان في عما دا فا نيكون تي بن نير bo xamantene ma faqahu hawa liko ko kaw ngolo ngelelu wayef la wama tahtahu hawa liko ko suuf ngelaw la thumma khalaqa arshahu ala alma ci ginaaw si mu door bind li nga xamne mom moy arasam ci kaw ndokh mi mu dal koy tek ci kaw ndokh mi ñom ñu dal di wute ba léegi ne yàlla lan la njëkk bind ndax mom dafa bind al qalam mom la njëkk bind bala muy bind yi yépp wala dafa bind xalima ba pare doora bind niir gu mu doora bind aras ñoom ñu daal di layoo xadis bi nga xamante al imam ahmad ak abu daawud ak tirmidi ñoom ñoo ko nett li ñu jële ko ci ubadat ibn samit mu ne yent bi sallallahu alayhi wa sallam nee li yàlla njëkk bind moom moo di alqalam mooy xalima ga ba ko bindee ba pare mu ne ko uktub bindal ba ko ne bindal xalima gi di bind lépp loo xamante ne moom mooy am ba keroog yowm alqiyaam ay maqadir al xalqi kulla kon dañuy tënk tomb yi rek ñu mën a dem ci ñaareel bi gaaw ñaarel nak ci tombu yi la wax de ñaarel ci tombu yi ñaarel ci tombu yi la wax cheikh amar kan alayka kadalik tabarak arrahman sifatu khalqi al'arsh ni yàlla bur bi subhanahu wa taala bindi aras fa taala allahu almaliku haqq fa taala kawe allah yalla al malik bur bi nga xamne al haqq moy deug la ilaha illa allah la ilaha illa hu amul benn bour bu yeyo jaamu ku dut yàlla moy kan rabbul arshil karim moy borom aras bu tedd ba mu waxat ne la ilaha illa hu amul benn bour bu yeyo jaamu ku dul rabbul arshil azim moy borom aras gu magga ga mu ne wa huwa al gafurul wadud dul arshil majid yàlla mooy ki nga xam ne mooy baal ku ko neex wa huwa al gafuur may waaw may baal alwadut yàlla da lay baal ba pare neexalu la xam nga yàlla dafa ñëw mu ne man maay baal ku ma neex ba pare di ko neexalu mel ni nit ñi dañ ne ko waa léegi yow yaay kan mu ne la zul arshil majid maay borom arash gu màgg gi pour tënkal leen ki nga xam ne moom mooy ibnu abbas abdullah abbas ibnu abdul muttalib dafay nettali mu ne dafa am benn bés kunna julusan ñun dañoo toog maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu toog ak yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wa salaam fa marrat sahaaba am benn niir bu ñu romb comme niir yi ñu gis ci asamaan ne dafa am benn niir bu romb fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu hal atadruuna ma haada ndax xam ngeen lii lan la qul naa sahaab ñu ne ko lii niir la qaala wal ñu ne ko al muzn lan la alquran a antum anzaltumuhu min al min al muzni ida qulna al muzn ay ashabu alladi yaxmilu l ma maanaam niir saa yu ñu leeree ne niir bi moom day taw ci arab moom la ñu tuddee al muzn كذلك كذلك شيخنا شيخنا اسماعيل اي المزن نقوله حينما يعني يكون السحاب ثقيلا حينما يحمل الماء نقول المزن طيب قال قلنا والمزن نيو نك والدي تي عرب دنج كوي تودي مزن موي نير قال والعنان يونت بينا عنا نك بلغي خيتو نير لا يونت يالا محمد دا غور عرب لول قال قل قال فسكتنا ني دادي نوبي من ني هل تدرون كم بين السماء والارض اسك خم نين ديستانس بي دوخ سي اسمان اك سوف نمو تول يينيت ما هل تدرون كم بين السماء والارض ناني خول اسمان سي ني غيس اسك خم نين ديغنتي اسمان اك سوف سي ني توغي تاي جي ديستانس بي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تي بيموي واخ لي ماتريير يي ام تي جيغا خامني مان نانو نات ليب اماغول وون نдах موم لا يالا يوني وما ينطق عن الهوى ينت يالا محمد عليه الصلاه والسلام بغ واخ ديستانس بي دوخ سي ديغنتي اسمان اك سوف مون بينهما مسيره 500 سنه مون سوكو نيت دون دوخ ديغنتي اسمان اك سوف دينا كو دوخ جيرومي تيميري اتو يالا اسمان سي نيو جيس pour ñu wan leen ci ne màggaayu yàlla faw ñu xool ko ci li mu bind li mu toll mu ne su ko nit doon dox dina ko doon dina ko dox juróomi téeméeri atu yàlla diggante asamaan bu jiitu bi ak ñaareelu asamaan su ko nit doon dox dina ko dox juróomi téeméeri atu yàlla digënté deuxième asaman ak troisième yonent yàlla Muhammad néna su ko nit doon dox dina ko dox juróomi témir at yàlla digënté troisième ak quatrième nonu digënté quatrième ak cinquième nonu digënté cinquième ak sixième nonu digënté sixième ak septième asaman nonu wa kisafu kulli sama longoru asaman su nek masiratu xamsi sana asaman bu nek balang koy rombu ding ko dox juróomi témir atu yàlla yonent yàlla Muhammad néna soko jéxalé ci ngay jot benn géej géej go xamné bayna asfalihi wa a'laa ron géej gi ak kawam masiratu 500 sana nee géej gogu pour nga xuus ko ding ko xuus juróomi temeri atu yàlla soko rombe nga dora a jot samaniyati awal juróom ñetti malaika yo xamne ko ci beggona dox diggante oomam ak sévém manam tësten bi ding ko dox juróomi temeri atu yàlla wa fawq dalika al arsh wa fawq al arsh rabbul alamin takaw kaw aras bala yàlla tok kii mooy yàlla كي ما سنو برم اسك خمنا نو يلا الناس لا يعرفون الرحمن كو خم يلا رجلكو كو خم يلا داوكو ويحذركم الله نفسه يلا نين ما يتولن ما ما يتولن يلا جامنو جي يبنا نو يلا من بوكو نتي ما سبيسياليزي صالح يا يباري خمنا نكو موي لي ويسو mais ci histoire doomu adama li gënoon a yéeme te ma yër ko ci téré te mu wër sax ne moy li amone te nit gën ko wax mu nek li gën danger moy waxu fir'auna ba mu waxoon ana rabbukumul aala man may seen bour may seen bour may yàlla bu rëy bi waye jamono ji la hawla wala quwwata illa billah fir'auna yi bes tak subhanallah subhanallah yàlla ñu yàlla musal ci li nga xamante ne moom la gaay di wax mbokk yi déglu leen fi an jubayr ibn muhammad ibn jubayr ibn mut'im an abeehi qala أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي دفا أم بني أعرابي مويوا كاوغا دفا أم كن كجوجيون كاوغا دادي نيوتي ينتي صلى الله عليه وسلم منكو يا رسول الله يوكي اللي يني جهدت الأنفس وجاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا دانيو ديكو العرب اللغة العربية لغة جميلة لذيذة طيبة سامية راقية في عنان القلب تسيح منكو يا رسول الله يوينتي على محمد منكو جهدت الأنفس بين نسمنا نبصن وجاعت العيان نجبر خيفنا ونهكت الأموال سنو على النغنا نكو ساتشنا نكو وهلكت الأنعام سنو جريدين نحن أمون لك فاستسق الله لنا نانا ليلا مواتشي تاو بتنون فإنا نستشفع بك عن الله ونستشفع بالله عليك تي يولا نوي أو نان انترفاسيو تي يالا ندح متاو نونت نوي أو تي يالا نان انترفاسيو تي يو ندح نغتاو خول بواخ ندح موسنين في دق كاد دقومل ليلا واجي وخي ينتي محمد مونة كو تي يولا نوي نان انترفاسيو تي يالا تي يالا انترفاسيو تي déglu leen yàlla muhammad yent yàlla muhammad ni ko way hak mu ne ko da nga dof way hak est-ce xam nga li ngay wax atadri ma taqul ndax xam nga li ngay wax wa sabbaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yent yàlla muhammad dafa tit ragal yàlla ba nek di sabbal yàlla subhanallah subhanallah subhanaka allahu haythu kunt سبحانك الله حيث أنت سبحانك لا إله إلا الله يونتي محمد سبال يلا مونيكو أتدري ما تقول اسكا خمغا لنجي وخيو فما زال يسبح ينتي محمد دي يالا دي سبل حتى عرف ذلك في وجوه اصحابي بكخول اي صحابه خمنا يونتي يالا محمد يكن لكم متي دغن لكم متي باسكو دنج نكو يو دانيو نيان يالا انترفاسيون تي يو رك ينتي يالا محمد نكو وي حق لا يستشفع بالله على احد كن دو نيان يالا انترفاسيون جيم تي كن على احد تي كن لا واخ من خلقي تي اي منديفم شان الله اعظم من ذلك يالا اي مبرم ابنا لولو ويحك أتدري ما الله يودغا دوف اسكا خمغا كان مو يالا إن عرشه على سماواته لهكذا عرسو يالا موغي تي كاو اسمان ني لا نيت تاب تي كاو اسمان وانه ليئت به اطيط الرحل بالراكب تي اسمان سو يالا توغي دا فاي ديس كوم ني غي توغي اتنو لا موي يوخو nga gis ne lii attanu la yàlla bi mu toogee ci asamaan yi noonu la asamaan yi mel na nañu jéem wala xamtu ji kan mooy yàlla buur bi subhaanahu wa taala yàlla buur bi subhaanahu wa taala moo tax mu wax ci alquran ne taaruju almalaikatu warruuxu ilayhi fi yowmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana malaayka suñuy yéeg dem ci yàlla tey jii su fekkoon nit a koy dox dina toll ci juróom fukki atu yàlla juróom fukki junni atu yàlla moo tax lenn ci borom xam-xam yi ñu wax ne yaatuwaayu aras maanaam su fekkee li nga xam ne moom mooy yaatuwaayu aras moom su ko nit doon dox dina ko dox juróom fukki junni atu yàlla waaye su fekkee ne maanaam dañu ne guddaayu aras moom mu ngi toll ci juróom fukki junni atu yàlla waaye yaatuwaayam mu ngi toll ci junni atu yàlla ki nga xamante ne moom mooy Shahr xaw Hawshab dafay xam le ne malaayika yi nga xam ne ñoom ñooy yenu arasu yàlla buur bi subhaanahu wa taala ñoom ñe juróom juróom-ñetti malaayika lan ñeent yu jiitu ci malaayika yooyee ñoom dañuy sàbbaale yàlla ne subhanaka allahumma wa bihamdik laka alhamdu ala xilmika baada ilmik yàlla ñu ngi lay sàbbal di tudd sag sellaange waaye ñu ngi lay sàbbal di la sant ci lewet gi nga am ci ñun ginnaaw ba nga xam ne xam nga ñun lépp ndëngati yi ñu nekke ñeent ya ca topp nag ñoom seen sàbbal yàlla ma moo di subhanaka allahumma wa bihamdik laka alhamdu ala afika baada qudratik yàlla nu ngi lay sant ndax yow dang ñoo xamal te man ñoo réglé ba pare baal ñu malaayika yi ñoom ñooy wax loolu benn bés jaabir جابر عن جابر بن عبد الله كي سليمان جابر جلنا انت جابر من قال النبي صلى الله عليه وسلم ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام نينة أذن لي أن أحدث عن ملاك من ملائكة السماء من حملات العرش ينتي على محمد دفتوك صحابي من كايلن بنيوم جبني نيو mune ne udina lii saa borom yàlla jox na ma an uhaddisa an malak ma nettali leen benn malaika ba yox boo xam ne min xamalati l arsh bokk na ci malaayika yittee arashu yàlla annama bayna shahmati uduni li nga xam ne mooy yàpp noppam muy fii fii fii nga xam ne mooy yàpp noppam ilaa ñëw ba ci loos bi fii mu masiratu sabi am su ko nit doon dox dina ko dox juróom ñaari téeméeri atu yàlla malaayika 700 ans su ko nit doon dox fii ak fii xool ma man mu tuuti mi waaw allahu akbar waahin moo tax kursi yi Saïd ibn Jubayr dafay nettali ne kursi yi mooy mawduul qadamayni mooy fi yàlla di teg ay tànkam xam nga dañuy dégg aras di dégg li nga xamante ne moom moo di kursi yi mooy mawduul qadamayni wal arshu la yaqduru qadarahu illa allah aras nag yàlla rek moom moo xam na mu toll waaye ci biir ayatul kursi ñu daal di fay tas yi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard ñu bari da nga dégg ñu naan wasi'a fees na te yaatu na kursiyyuhu seesu yàlla asamawaati asamaan wal ardi ak suuf déet sëriñ yaa ngi toj kaas de kursiyyuhu foofu mooy ilmuhu mooy xam-xamu yàlla xam nga léeg-léeg réew mi nga dégg fi ay fir yu doy waar طلوا وأضلوا إن الله لا يقبض العلم انتزاعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ينتي الله محمد موكو آه، بخاري وخوتي مسلم من يلا جمانو نيو دينا في روتي خم خم نام كوي روتي نك نكول ندفع نيو ديكو روتي تدنو غايا خمون دفعي ري بروم خم خم يبن بن, بر بن. ba nga xam ne boroom xam-xam yi dañuy néew ci kaw suuf gars yi di fal ay imaam yoo xamante ne taniwuñu dongaluy door a door di fal ay sëriñ yoo xam ne yow mi taalibe bi yaa ko raw fa su ilu fa aftaw te ba pare dañuy dëgër fit nag di sol ñetti abdu lañ toll xam naa 45 abdu lañ jëm di ko sol ku leen laaj ñu tontu la fa dallu dañuy réer wa adallu ñuy réeralaate xadiisu yonent yàlla Muhammad lay wax islaam gi aw ma ci xalaat ana rajulun nasi teg sa yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam la fa dallu wa adallu dañuy rir réeralaate dañuy sànku sankaté moy li am suñu jamono ji intabihu ku nek yaangi nan diw moy sama soppe xolal kan moy sa soppe ma ja yusmiu a ayatin aw ahadith ndax ay alquran la lay dégtal ak hadith allahu nazzala ahsana alhadith nit mënta wax lu gën a rafet alquran laa wax lii la yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam waxoon yonte bi salallahu alayhi wa sallam dafay xamle ci xadiisu ki nga xam ne mooy abi dar al mune bés dafa mos a laaj yonte bi sallallahu alayhi wa sallam anil kursi mune ne yonte yàlla Muhammad kursi yu nu mu toll dafa ne yonte yàlla Muhammad nan la kursi yu toll yonte yàlla Muhammad alayhi salatu wa salam di ne ko mas samawati saba jurom naari asaman yi nekkuñu wal araduuna saba ak jurom naari suuf indal kursi ci li nga xamne moy kursi yu yàlla manam fi muy tek ay tànkam illa ka halqatin mulqatin bi ardin falat mu ngi melni nga jël ben lam halqa man nako fi relam non lay toll moy yiñ doon fegge buntu yi nga daal di koy jël jox ko Cheikh abu Jandal mii ñun ñëpp ñu toog ne ko demal ba Mauritanie wala fu la neex ci àdduna bi nga sànni ko ñun ñu jóg di wëri lam boobe nee ne noonee la kursi yu ëppee àdduna soo jëloon kursi yu itam duggal ko ca aras noonee la aras ëppee kursi yu kii mooy bindu yàlla buur bi subhanahu wa taala mais kon da am ci dëkk bii am ci benn 200 mètres carrés wala 300 mètres carrés nga ne noo dootoo joxe loxo cati loxo ngay joxe am nga lu dul jeex te li nga am tànku malaayika xaju ci xalqu samawati wal ard dañuy tëb allawxul mahfuus parce que waxtu wi tënk nañu xalqu samawati wal ard ni yàlla bindee asamaan ak suuf ana maçon yi xool leen xool leen asamaan ni mu rafetee rek benn mag dañ ko mos a laaj ñu ne ko limada samaa safiya lu tax asamaan set mu ne ko parce que ay nit dëkkee wuñ fa sénégalais suñu dëkkoon asamaan dañuy xëy gis mu ñuul kukk limada samaa safiya mu ne ay nit dëkkuñ fa suñ dëkkoon fii asamaan da nga xëy gis mu ñuul kukk maa la ko wax xoolal fii def nañ set setal ñaari yoon pour mana a kii yàlla li mu bind dafa taaru lool جمال فوق ما وصف الجمال وحسن ليس يشبهه مثال جمال الرب أبدعه بكون يكيل به الجمال ولا يكال وحسن الرب في الدنيا فريد لديه ولا امتثال فلا مثال بديع الصنع أعطى كل شيء حقيقته ففاض بها الكمال ترام الكون يجمع خافقيه ليحكي قصة عنه الخيال فهذا الفجر في كسل تمطى بنور النور يسحبه imtiyaalu lii la boroom xam-xam bi waxoon yàlla taaram daf ko wane ci li mu bind xoolal ni asamaan si rafetee xoolal biddéew yi ni nga xamante ne noonu lay nekkee ci asamaan ne nongu ci kaw asamaan guddi gi nañuy saytu xoolal weer wi ni muy ne nongu ci asamaan inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi leyli wa nahaar la ayatin li ulil albaab yàlla nee ne ni ma bindee asamaan ak ni mu taaroo nii nee ne kawtéef la waaye firnde la xalaatukaay la ñeel ñi nga xamante ni ñoom ñoo am xel ki nga xam ne ibnu ishaq dafay nettali mu ne waa tawraat damay tënk ci mbir mi bu baax a baax parce que tëb naa ci ay axbaar yu bari yoo xamante ne parce que yi ay buntu la yoo xam bu ci nekk rek dar su boppam la xam naa suñ ci paree jombul ko aw ci daara ji wala jokk ko ak ñi fi ne dañ la jox dañ la ko jox ci format PDF incha allahu taala jombul jàngkat yi dañ ci mën jot lu bari soo fekkee ci waa tawraat muy yahud ñoom dañoo gëm ne yàlla bi mu bëggee commencé bind asamaan ak suuf dimanche la commencé dimanche yahud ñoom loolu lañ jàpp ne yàlla dimanche la commencé soo demee ci ñi nga xam ne ñoom ñu injil maanaam catholique yi la ngay fekkee ci seen bible mooy que ne yàlla lundi la commencé bind soo ñëwee ci ñun jullit ñi li nga xamante ne moom moo gën a wér ci xadis mooy que ne yàlla bésu samedi la commencé samedi وهذا القول الذي حكاه ابن اسحاق عن المسلمين maale ilayhi taifatu min al fuqaha ñu bari ci fuqaha yi jàpp nañ ne te wéral ne samedi la yàlla commencé bi muy bind asamaan ak suuf ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ashafiiya wa ma ila dalik waaye su fekkee ne juróom benn fan yooyu nga xam ne moom la yàlla wax ne bi may bind asamaan ak suuf ci six jours laa ko bind jamono jooju ay lundi mardi dimanche amagul juróom benn fan yooyu ñu ngi tuddoon ab jadd ab jadd hawaz xutti kalamun saafas qarashat six jours yi lan ab jadd هوني كون بريمير زور هواز خطي كلام سعفس قرشت موني كون جيروم بين فان يوي مولي غنوير لي ما راني كو ديمتي البدايه والنهايه بوتنو كثير نكو فيك اما عند المقاري مشايخنا كما عند ابن الجزري استعملوا هذه استعمل هذه الرموز ما شاء الله تعالى وارمز بها القراء والروايات وما الى ذلك بارك الرحمن في مشايخنا kon juróom-benni fan la yàlla bur bi subhanahu wa taala bind li nga xamantene mom moy asaman ak suuf ak lépp mom mo dox ci diggante bi ki nga xamne mom moy qatada daf ñuy xamal ne yàlla ñett yi mom motax mu bind biddéew yi ci kaw asaman bi ci jitu moy mu taral asaman ñaarel bi mu def ko rujuman li shayatin moy lan mu nekk jameekaayu shaytan yi ñettel bi mu def ko ay mandarga yoo xamante nit ñi dañ gindé ko manam yuhtada biha motax lele so leeg gisee capitaine yu njëkk yi jombul amna ci ba léegi ñoo xamné ñu bari xam nañu ko suñu nekké ci géej gi lélé leeg yi mo leen di tax permettre ñu mëna xam fan la pénku bi tollu fan la soow bi tollu fan la Sénégal fété ko ma ila dalik te yakkar na tuba bi léegi amna juntu kay yu mu génné yo xamné mom mo leen di dimbali ci géej gi lisani la yoxsunul faransiya hadi illati xamna dama gaaw faté lépp lu jëm ci tuba ah bu sol la wax néné ne bu sol waa ji nee ne bu sol macha allah nee ne bu sol jërëjëf yàlla buur bi subhanahu wa taala nee وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون من ماجل اسمان ديف مبار مو خمنا من ماكو سمال سما بوب واي غاي خمنا نك كين من تبندو لو تولني واي نيوم دانيو دومويو كاوتي في نك اسمان وهو الذي خلق الليل والنهار يلا نني ما بند غودي اك بيتك غيس نين يالا تخ موي تودولي نانيو خالات ايماجيني لا ادونا نك غودي كيسه خمغا امنا ديك يو خمنا دانيو نك اي ات يو بري دونيو غيس ناج ايماجيني ادونا نك غودي كيسه wala mu nekk bëccëg kese wa shamsa nee na weer wi ba jant wi ngeen gis maa ko bind wal qamara weer wii ñëw guddi maa ko bind mu ne kullun fi falaki yasbahuun ku ci nekk yoon wa ma la teg ca nga tegu doo ko wàcc mukk abi dar benn bés dafa yontu bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko mos a wax boo fekk jant waa ngay sox jant waa ngay sox abi mooy jant wi ni ñu koy gisee nii donte li nga xam ne moo sax ci xam-xam adunaay dox jant wi doxut parce que jant wi moo ëpp aduna junni yoon yont bi sallallahu alayhi wa sallam nee na est-ce que xam nga jant wi fan lay dem Abu Dar ne ko déedéet xaw ma ko yont bi ne ko bés bu nekk jant wi dafay dem ba ci ron mu daal di sujootal yàlla nee na su sujootee yàlla daal di koy nangul après mu wàññeekuwaat ci bëccëg bi maanaam mu daal di wàññeekuwaat waaye bés penc saa yu waree taxaw jant wi dafay dem ba ci wetu yàlla mu sujoot waaye ñaan yàlla du ko nangul bu boobaa fa tatlu min maghribiha jant wi fa mu doon fénkee fale sowe yowmal qiyaama daal di taxaw ci ku xuus ci xam-xam xam na ne yowmal qiyam nekk na loo xamante ni lu taxaw la te jot na yàlla bur bi subhanahu wa taala daf nuy xamal maanaam ñu daal di dellu ci suuf si moo tax waa ji xooloon suuf si muy baykat bi dem ba ca àll ba gis ni suuf si taaroo mu ne al ardu qad labisat ridaan akhdara wa tallu yanthuru fi rubaha jawhara هاجت فخلت الزهر كافورا بها وحسبت فيها التربة مسكا أذفرا وكأن سوسنها يصافح وردها ثغر يقبل منه خدا أحمرا suuf si ñaar rek laa ciy junj mooy li ma ci bëgg a wax mooy xam le ne juróom-ñaari suuf moo am maanaam suuf sii ngeen di gis nii muy teer bii juróom-ñaar yu mel noonu la yàlla bind juróom-ñaar yooyu mënoon naa ko jële ci ay xadis yu bari waye dama koy jëlee ci ay hadith yo xamné actualité la déglu leen yonent yàlla Muhammad alayhi wasallam muy xadisu aisha radiyallahu anha muné man zalama qid shibrin tuwiqahu min sab'i aradin yonent yàlla Muhammad nee ku nangu suufu jaambur lu tollu ni qid shibr suufu jaambur yow yaay liggéeye maire wala yow yaay autorité bi wala yow ya am khalis wala yow yaay gaayinu diw ba tax nga jël suufu ni, lu toll ni neene danui bu yowmal qiyamé danuy xotti suuf si ba jot juróom-ñaari suuf daal di la koy yenn lemes la ko ne la doxal ak moom kan mo meuna yenu ñaari paanu ndox fi ñaari paanu suuf la wax qida shibrin lu toll ni <laughs> anaki ki sàcc ay hectare <laughs> ñii fit allah akbar anaki ki sàcc ay hectare ñu war laa yenn ay hectare waye hectare yi ñu xotti ba ci suuf <laughs> لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله رحمك يا رب أنا كي ساتي أكتر وخلن ملين يونتبي صلى الله عليه وسلم نين كو ساتي سوف جامور مير يتي سنغال يب نن مدق لكميني كو ساتي سوف جامور طويقه من سبع أراضينا يوم القيامة بو يوم القيامة دن لكو تبل بجروم ناري سوف ين لكو نغتب بكم سفرة maire yi ci Sénégal yëpp nañ ko dégg bépp autorité bu mos a jël terrain jàmbur demal delloo ko ko baadoola bu jënd terrain nga daal di koy foqati nangu ko ci moom demal delloo ko wallahi yowmal qiyam dañ la koy yen nga dugg safara oustaz bu la wax ne rafetalal la ko ndax nga may ko ci terrain ba dalay nax yéen ñaanay ànd fa kubkibu fiiha humal gaawun alquran lay wax man yéen lañuy ñuy boole duggal safara suufu jàmbur la aqu jàmbur la du aqu yàlla yàlla mën na balé la mu mom waye suufu jambour delo ko ko nga baadoola la motax nga dem nangu bosam ittaqullaha fi ibadi ahsinu muamalat an-nas nit do ko upp dole diko note هذا هو الحق والحق أقول aqul li القرآن الكريم مكي الملائكة mbokk yi almalaika mu nekk mbindeefu yàlla buur bi subhanahu mu nek lu sax ne yàlla bindina ay mbindef yo xamantene malaika lañ tuddu duñu doomu adama xam nga yàlla bindina malaika ba ci bala muy bind jinne diggante jinne ak mam adama junni at doxna ci diggante bi manam bala muy commencé bind doomu adama junni at doxna ci te avant jinne avant jinne amna mbindef yu ñëkko na nek ci kaw suuf ñaari xeet mo ci gëna wér amna xeet go xamné al la tuddu ñu doon moy yàlla yàlla jële len fi ci ginaaw si yàlla andi al bin ñu doon mooy yàlla yàlla jëlee leen fi yii ay masala yoo xam ne ca daara ja lay lay lay leere waaw ay masala yoo xam ne ñaare daanaka donge ci daara ci majalis yi lay gën a gën di yaatoo waaye jombul yàlla dinañu may lu yàggut ñu mën a toog gën cee yaatal dimbalante ak dong yi malayka yooyee mu nekk ay jaam yoo xamante ne yàlla buur bi subhanahu wa taala daf leen dénk ay mission wala yaasuuna allaha fi ma amarahum du ñu mooy yàlla buur bi subhanahu wa taala ki nga xamante ne moom mooy qataada xam le na yooyu dañoo am manam alquran xam le na ne malaayka dañoo am ay laaf comme ni ko yàlla waxee ca surtu fatir waaye fatada qatada bi mu déggee li nga xamante ne moom mooy aaya bii nee na yàlla bur bi subhanahu wa taala dafa bindi malaika yi ñu nekk ci ay melokaan yoo xamante ne bokkul am na ci ñoo xam ne ñaari laaf la ñu am am na ci ñoo xamante ne dañoo am maanaam ñaari laaf benn fii benn fii am na ci ñoo xam ne ñaar fii ñaar fii lañ am mooy masna wa thulaatha wa ruba am ñoo xam ne ñett fii ñett càmmoñ lañ am am ñoo xam ne ñeent càmmoñ ñeent jor la ñu am waye su fekke ku melni ki nga xamantene mom moy jibril jibril sax na ne mom amna na ben temeri laf ñaari laf yu ci nek toll na ni pénku ak sowu ci aduna kon nan la jibril wala tollu ki nga xamantene mom moy al, al al qurtubi mom net la jële ci ki nga xamne mom moom az-zuhri xam le na jibril alayhi salatu wasalaam dafa wax mosa wax yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mune ko so gison israfil amna 12000 laf manam amna fukki junni laf ak ñaar yoo xamante ne su tàllalee ñaar rek ñaari laaf rek ci yooya tool na ni pénku ak sowu maanaam ñaar rek ñoo ci xaj ci àdduna waaw kon xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo nettali mooy ba mu demee ci al isra wal miraaj xam le na ne euh, romb naa benn néeg boo xam ne baytul maamuur lañ ko tudd tuddee ci asamaan maanaam néeg boobu mu ngi ci asamaanu juróom-ñaareel bés bu nokk nekk lu tolloog juróom-ñaar fukki junni malaayika dañ fay dugg te ku fa dugg dootoo fa dugg ba yowmal qiyaam 70 000 malaika bés bu nek dañuy dugg ci néeg bobé sa yuñ fa duggé génni dootuñ fa dugg ba yowal qiyaama manam yàlla bur bi subhanahu wa taala nimu amé amee néeg boobee ali ibn abi talib ne ne néeg boobu bi al ka'ba mo ka'ba gi ci kaw suuf ñom ñoo tollo manam su daanu won da fay nek lo xamné lu dal la ci ka'ba gi donte am na ci borom xam-xam yi ñu wax dé asaman su nek dañu am seen néegu bop waye suuf bu nek am seen néegu bop waye li gëna wér moy baytul ma'mur moy néeg bobé nek nga xamné mo moy mooy juróom-ñaareelu asaman ابي ذر دا فاي نتلي من ينت صلى الله عليه وسلم نين اني ارى ما لا ترون من دا ماي غيس لو خامتاني يين دوغن كو غيس واسمع ما لا تسمعون من ماي ديغ لو خامني دوغن كو ديغ اطت السماء وحق لها ان طئت اسمان يانغي اونكو te deuguna yelna pour asaman yi onku dal di yuxu ma fiha mawdi'u arba'i asabi asaman monofa tek place place boy tek nienti baram illa alayhi malakun sajid ludul ne di nga gis malaika bo xamne dafa sujud ba yowmal qiyam mune law alimtum ma aalam yen ñi yonte yàlla muhammad nee na su ngeen xamone lamu xam la dahiktum qalila di ngeen retan tuti wala bakaytum kathira di ngeen joy lu bari wala ma taladattum bin nisa du ngeen fi talab banexu ci ay jigen ala al furushat ci kaw lali wala kharajtum ila suudat di ngeen xëy génn yek ci kaw montagne tajaruna ila allah azza wa jalla di yuxu wuutale yàlla suñu borom yonti yàlla muhammad moo wax li abi dar nee na bi ko yonti yàlla muhammad waxee la wadittu anni shajaratan tu'dad man bi ko bi waxee ma am envie nekk garab goo xam ne dañ may dagg nekk garab goo xam ne dañ may dagg di ma def ay xas wa ma ila dalik jaabir ibni abdallah dafay natt ci xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne maa fi samawaati saba nekkul ci asamaanu juróom-ñaar mawdiu qadam foo xam ne nit mën na faa teg tànk wala chibre wala nit teg fa loxoom nii maanaam loxoom muy chibre wala kaf wala nga teg fa sa tënk illa wa fihi malakun qaim lu dul ne am na malayka bu fa taxaw di jullil yàlla ba yowm alqiyam aw malakun saajid wala malayka boo xam ne dafa sujootal yàlla ba yowm alqiyam aw malakun raaki wala malayka bu rukoo ba yowm alqiyam fa ida kaana yowm alqiyama yowm alqiyama saa yu jotee قالوا جميعا ملائكة إبدار تخونا يالا سنو برم ما عبدناك حق عبادتك جامو نيو جامو بورتيو إلا أننا لم نشرك بك شيئا لدلنا يالا بوكا لون لكن لا تشركوا بالله أرجوكم لا تشركوا بالله أرجوكم إن أردتم الفوز بالجنان أمول جم جو يالا بند ما وركو رجل بور رجل لما يوخت موم أمول كوفي يالا بند ما ورا ياكار تي موم لا يتخ ما وخ لوكو نيخ من نعم بس بين عندي مجيء شيخ عمر مي كونفرنس من نعم يوم القيامة نيدجوات كن لا تشركوا بالله شيئا بولن بكالك يلا لواي من دفتي أدنى بول بكال يلا أخلصوا لله عبادة أخلصوا لله توحيدا بصفاته وربوبيته وألوهيته نانيو جامو يلا تبانكو بولي أكن نانيو كنل تبنل يلا ينتبي صلى الله عليه وسلم dafay wax ci xadis boo xamante ni ibnu abbas moom moo ko nettali mooy bi mu waxee ne yowma yaqumu ruuxu wal malaikatu safan la yatakallamuun bés ba nga xamante ne ar ruux dina taxaw ak malaayika yi dinaa ñëw ci ruux safan ñu nekk ay sàppe laa yatakallamuuna kenn ci ñoom du wax malaayika yi nañuy toll yépp kenn du wax yowm alqiyam ila illa man adina lahu rrahman lu dul ki yàlla jox ndigal wa qaala sawaaba te lu jub rekk lay wax qaala ibnu abbas wal xasan wal qataada ibnu abbas ak xasan ak qataada dañuy wax ne al muraadu bi ruuxi huna ha huna li ñu namm ci ruuxu mooy banu aadam mooy doomu aadama yi am ñu wax ci borom xam-xam yi ne darbun min al malaayika ay façon la ci malaayika yi yusbihuna bani aadama fi shakl dañoo niru ba doomu aadama ci lan ni leen yàlla bindee moo tax hadis ñu waxoon ne ki nga xam ne mooy mikail melokaanu doomu aadama la yor yooyu waxtu wi moom moonu tënk ci yu bari am ñu ne déet ruux moom mooy jibril ñu bari jibril lañ koy firlee am ñu ne wa qiila wa qiila malakun yuqaalu lahu ruux am na malayka boo xam ne ruuxu la tudd bi qadri jamii al maxluqaat soo boolee mbindeefu yàlla yépp malayka boobu toll na ci ñoom alqama moom mooy nettali jële ci ibnu mas'ud mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne ar ruuxu fi samaai rabia روح بني ملاك بنك تنينتلو أسمان لا هو أعظم من السماوات والجبال والأرض ممو قنيات أسمان أك مونتاني أك سوف ومن الملائكة صوت بول الملائكة يب مولن أب يسبح كل يوم من 12 ألف تسبيحة بس بنك دفاي سبال يلا لتولوك فك جوني سبال اك نيار يخلق الله من كل تسبيحه ملكا سبال غوتي نيك يالا داف تي بند بن ملائكه نين الروح مومو يجيء يوم القيامه صفا وحده يوم القيامه صبي بوبام لا يورتي ملائكه بري با موي بارك نجابوتام موتخ يالا دادي كوي تودو ابن عباس دا فاي نتلي مون ينت يالا محمد عليه الصلاه والسلام نين ان لله ملكا لو قيل له التقم السماوات والارضين بلقمه واحد لفعل yàlla am malaka malaaka boo xam ne su ko yàlla ne woon ne hee mu ne ko naam mu ŋaaŋ yàlla ne ko wannal ma asamaan ak suuf ak ku nekk ci diggante bi daf koy wan ci benn lump yàlla yàlla xéewale leen xam-xam fii la niveau xam-xam Sénégal waron toll ñu xamal nit ñi ci sunu émission télé yi ak rajo yi moo gën ñu nekk ci ay masala yoo xam ne xale yi pensa set ak doo guuta mbaay ci ginnaaw ñoo ci waroon wax ca daara ja hada huwa alxaq suñu doon wax xam-xam ci télé yi normal diko wax ci conférence yi Sénégal ñëppay am xam-xam mais niveau bi moo masala yo xam duma ci wax malaka bobu da fay sàbbal yàlla سبحانك حيث سبحانك حيث كنت lay sàbbale يا لبرب سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله كن في kon fi ñuy يسين mooy kon dañuy lepp tomb yi ci desoon malaayka yi yàlla daf leen a diviser comme doomu aadama yi ni ngay amee benn société nga ni kii mooy directeur kii mooy secrétaire kii mooy lii malaayka yi dañu am ay métier am na ñoo xamante ne xamalatul arsh ñoom ñoo yenu aras malaayka yooyu ñoom ñoo yenu aras malaayka yooyu moom mooy alladina yaxmiluuna al arsh ñoom ñooy yenu li nga xam ne moom mooy aras am na ci deuxième catégorie goo xam ne ñoom la ñu tuddee al karubiyun karubiyun mooy tibu malaayka yi nga xam ne ñoom ñoo war a aras ñoom ñoo ko wër wa man xawla ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo wër aras ñom bokku nañ ci malaika yi nga xamne ñom ñoo gëna tedd ci malaika yi waye ñi nga xamne ñom ñoo yenu aras bokku nañ ci malaika yi gëna tedd jibril bokku na ci malaika yu tedd yu baax baax parce que malaika dañu gëna ci tedd niki nonu man nga caa boole ku melni isra mikail amna malaika yo xamne ñom ñoo dëkke asaman yi manam juróom-ñaari asaman asaman bu nek dafa am malaika yu ko dëkke diko dundal ak jaamu yàlla buur bi subhanahu wa taala motax yàlla ne yusabbihuna al layla wan-nahara la laa yafturuun du arrêté ben yoon ñentelu catégorie gi moy malaika yo xamne ñom dañuy ay aylo ci baytul baytul maamuur su ñuy duggee ba génné rek am ñu dugg wayé jiroom juróomeelu malaika yi moy ñi nga xamne ñom la yàlla jox aljana ñu daal di koy yor manam ñom ñoy garder aljana te ba pare ñom ñoy xéewal ñom ñoy wajal berne ci aljana fa qaala lahum khazanatuha salaamun wa kon moy malaika yu nek ci aljana ci njital ki nga xamantene mo modi moo ar ridwaan amna malaika yo xamne ñom la yàlla dénk safara ñom ñoko yor ñoñu nak jotuma xam ci ñom lu bari parce que jotuñ ma len présenter wa al muwakkaluna bin nar fa que safara jotuma jotuma len xamé ya ahla naar moom kenn mos a dégg makoy wax ci réew mi mom yaa ahlal janna yaa ahlal janna bii laa jot a jàng ca daara ja al muwakkaluna bi naar am na malaayika yoo xam ne ñoom ñom ñoy lan azabaniya ñom ñoy mbugalaate ci sawara bari nañ lool waye capitaine ya fa nek muy général ya 19 lañu manam fukki malaika ak jurom ñent lañu malaika yoyé so bolé ñëpp Malik mom moy sen chef ci bir safara amna malaika yo xamné sen métier mom moy lan sen liggéey moy sam doomi adama yi ñom dañuy sam nit ki manam yàlla ginaaw bi la bindé ba pare daf lay sam motax gis nga ku andak yàlla do ragal ku andak yàlla do ragal ku yàlla bëggut lenn lal su nit ñëpp daje woon ak jinne yeeg njaay àll yi bëgg laa lor mën a luñ la dara waaye ku yàlla noppi ci yow pare ci yow weñ bu ndaw sax su la laalee nga dee kii mooy moom yàlla buur bi subhanahu wa taala mos naa ko wax ci benn conférence ne yàlla nit ki suy nelaw dafay yebal ay malaayika yu lay yu lay garde xam nga dañoo dafa bari ñu doy waar am ku ne ma jël micro ne ma cheikh bi dama am question ma ne ko lan mu ne ma xanaa ñi yàlla di garder ba nga xam ne du agsi ci yoo xanaa yoo bokk ci yoo ma ne koy ma ne ko ma ne ko yoo carte rapido rapido la xam nga dañuy <laughs> dañuy <laughs> ne ko yoo carte rapido la yor rapido rapido ah, <laughs> waaw am na malayka yoo xam ne ñoom ñooy sàmm doomu aadama yi al muwakkaluuna bi xifzi amali bani aadam am na malayka yoo xam ne seen liggéey mooy euh, daal di comptabiliser lépp lu nit kiy def kiraman kaatibiin lu nit ki def rek ñu daal di koy bind jibril alayhi salam moom mooy wàccee njub ki jele ko ci asaman daal di koy jottali ñi nga xamne ñom ñoy nit ñi mikail mom mom la yàlla dénk lépp lo xamne jëm na ci taw ak saxal manam hadith xam le na ne bepp tokku taw bu jóge ci asaman di wàcc manam taw bi suy wàcc tokku bu ci nek dafa ànd ak benn malaika bu koy gunge ba ci suuf xar suuf ci duggu fa lamu wara saxal ci ñax mu saxal ko malaika ba door delu asaman motax tax taw wallaay su fekkul woon problème mu temps dinaa leen waxal ci màggaayu borom bi israfil su fekkee malaayka bi ñu tuddee israfil nag moom la yàlla dénk ne saa yu àdduna waree tukki rek moom mooy wal buftiga moo koy ëf rek ñëpp daal di dee waaw muwakkalun bi nafxi fi suur lil qiyaami min al qubuur wal xuduuri yowma al baati wa nushuur li yafuuza al shakuur wa yujaaza al kafuur fa daaka danbuhu magfuur wa sacyuhu mashkuur wa hada qad saara camaluhu kal habaa'i al manthuur wa huwa yadcuu bil wayli wa thubuur اللهم ما كان من صواب ومن خير فمنك اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا إله السماوات والأرض اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا قراءة القرآن وتلاوة القرآن اللهم متعنا بالقرآن اللهم جملنا بالقرآن اللهم زينا بالقرآن سبحانك ما أرأفك سبحانك ما أكرمك اللهم سألناك لأنك العظيم ورجوناك لأنك الكريم وقصدناك لأنك رب العالمين اللهم إن توفتنا المنية ووارتنا التراب وانصرف الجار والجيران وبقيت معنا فارحمنا يا إله السماوات والأرض اللهم إن رحمتنا فأنت أهل لذلك وإن غفرتنا فأنت أهل لذلك ذلك أما إن عذبتنا فمن ذا الذي لا يرحم اللهم ذنوبنا كثيرة لكن عفوك أعظم يا إله السماوات والأرض اللهم سألناك مع كثرة الناس والخلائق اللهم لا تجعلنا مع أحد ولا أي زمرة إلا مع أهل القرآن اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا بالقرآن اللهم لا تسلط علينا ولا تسلطنا في غير القرآن اللهم لا تدخل في قلوبنا غير وسوى القرآن اللهم لا تحببنا شيئا سوى القرآن اللهم لا تبتلينا بالعيش مع شيء غير القرآن واجعلنا من أهل القرآن يوم القيامة القيامة واجعلنا مع أهل القرآن في جنات عالية قطوفها دانية ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم بارك الرحمن فيك تكبير